financement ci parti yi loolee kat nekk na jafe-jafe boo xam ne dañ koo teg ci wërngool table yi ngir ni nga xam ne mooy acteur politique yi ay at a ngi nii ñu mën cee waxtaan naam sax daan na sax loo xam ne kat lu sensible la waaye tamit mën a waxtaan daa di am mala sax déggoo ci kàddu loolu mooy illa ji ndax gouvernement yi nga xam ñoo toftalu lu ci mel ni socialiste libéraux yi ak républicain yi di waa APR ñoom seen bopp tamit acte bi nga xam ne mooy loi bi ba tey voté wuñ ko blocage bi nag moom dafa delluwaat ci li nga xam kat mooy déggin gi waaye tamit am ñoo xam dañoo bëgg daal jàppal tànk ki nga xam ne moo yor nguur waaye tamit mën leen di financer ci parti au pouvoir wala ñi xam ne na daal financement ci parti politique yi dafa delluwaat rek ci nga xam ne ñooy adversaire am ñu gën a am xaalis waaye tamit loolee risque la ca moom financement xam ne saa yoo xam ne d'accorduñ ci ndax démocratie sénégalaise moom da cee mën di feebar kon li nga xam mooy parti au bi moom ci boppam am na possibilité daal di daj ci koppar googee waaye ñi nga xam nag ñoo bokk ci kuje gi moom mukk duñ ko sax gis kon lu ci mel ni parti socialiste wala sax parti démocratique sénégalais wala waa xam moom la daal di dafa mel ne lu lëndam loo xam ne sax kii mën ta xam fu muy jógee wala sax fa lay mujjee lu ci mel ne ay fonds yoo xam ne moo dukkee ci ya palais wala primature conseil économique social environnemental wala haut conseil des collectivités territoriales kon tam lu bëree bëri ñu koy daal utiliser ay fonds politiques yoo xam ne dafa mel ni sax daal di xoqatal ñi nga ay opposants waaye tamit ñu bëri yaakaar ne loolee buñ ko tegee kat ay ndigaate la yoo xam ne day tax ñu mën a am ay poste yu baax ndax gis nañ tamit ku jéggi tamit day met ci moom ndax ñàkkum koppar day tax du mën a def benn activité kon loolee tamit tax dëgg la waaye parti yi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal ay at yoo xam ñu ngi koy mën di waxtaan waaye ba tey waaye tam yeggun ca ñoom waxtaan la kon ñi nga xam ñooy acteur politique ñoom seen bopp ñoo war a dimbalante seen biir bu ko loolee démocratie sénégalaise luy gën a duufal waaye lépp rek tege ci leeral